maître Babacar Ndiaye mais de justesse bi maître Babacar Ndiaye gën a a <laughs> Dagana actuellement moom ah, également war na war a a a euh, seen kii mais je pense que day ñëw. parce que euh, révolution la boo xamante euh, mooy loolu colonel Mbodj par exemple tu n'as jamais vu ñëw am parcours yooyu noonu ci armée am taxawaay bi ci politique. Mm-hmm. c'est une révolution mm-hmm. yii nii mosoo ko doon gis. c'est-à-dire. Azoura Fall ku ko waxoon ne ci campagne bi. da colonel Mbodj a rappelé que ni également ci ci campagne bi moo nekkoon président commission sécurité bu Bassirou Diomaye Faye amal ci liggéey bu am solo. alors qu'il fera donc un bon ministre des forces armées. pourquoi pas. d'accord donc euh, en tout cas c'est mérité. Oui. il a le parcours nécessaire. il a le discours il a l'expérience et l'engagement politique qui s'y est. Mhm. donc euh, euh, yeyoon na ko mën na ko ñeneen ñoo xamante ne euh, def nañ lu ci war mais léegi Benno Bokk Yaakaar lan lañ defal Amadou dara. moo tax sax am ñu nekk bennoo ñu jàpp ni est-ce que réellement Diomaye Faye du woon véritable candidat wu Macky Sall bi mu demee ba mu voté ba génn maa ngi naan kii moo ah. voté lul Diomaye loolu gars laajte de xam nga daa bëgg fay lépp luy takk ci fay da koy bëgg moom waaw ah. yaa ngi réew bi yàgg nañoo sant fay rek commencé wul 24 mars de ah. na voté Diomaye day gis fay bi rek yaram moom daw am ay chef de poule te am am na ku mu àndaloon ba muy voté mais est-ce que votelul Diomaye. mais ñi war a dem ba war ci tirer boobu les conclusions. Euh, non je blague mais bon. Euh, mais yaa ngi koy dégg fan yi Euh, yaa ngi koy dégg ay ay interrogation li nga xamante ne ñi am nañ ko. est-ce que n'était pas réellement le véritable candidat de Macky. sachant que ni ñenn yàgg nañu wax ni da doon dafa. c'est-à-dire bul régime Macky moo tëj Diomaye. non je veux dire pour par là je veux dire am na ñu jàppoon ni Karim moo nekkoon véritable candidat wu Macky. mais à la dernière minute dañoo gis Karim accepter rejoindre la coalition de Diomaye am na sax ñu ne. est que moom waa être cohérent euh, accuser Amadou Ba de corrupteur ba pare ñëw ne nañ voter Amadou Ba mënul woon am cohérence loolu donc euh, kon effectivement euh, que Karim rejoindre euh, le PDS rejoindre euh, la coalition de Diomaye lu logique la mais par contre ñoom tamit seen i pexe bu jugoon élection du am de. mais li nga doon wax sànq. c'est-à-dire ci fàttali seen seen pexe. Mhm. bu juboon. Diomaye mii du doon président. mais mais cest à li nga doon wax sànq ni gisuñu Macky Sall derrière Ba mu fësal comme ni ko Sonko defee Moustapha Diakhaté nee na euh, Macky Sall amul pour wane fu mu far parce que loolu loi daf ko tere. ban loi la na ko wax. moo tax ma bëgg nga leeral. amul Moustapha Diakhaté moom fi mu toll nii loi nee na ko na noppi na noppi. amul bàyyi sam père yow tamit. sa père amul lu mu wax fi mu toll nii. dara dara dara na noppi moom ba ci kanam moom it dañ ko jox état de grâce opposition. waaw saa saay euh, démb la woon de ah ñi ñu war a tëj dinañ leen tëj ñi ñu war a delloo dinañ leen delloo ñi ñu war a rey dinañ leen rey na tuub loolu waay balaa ñoo dem ci leneen mun mënuñu commenter ay waxam jamono ji na tuub ba pare ñu soog a continuer ci yooyu saa gis nga xam nga lii la quoi. kon daal loi waxul loolu. non mosu ko wax mais su fekkee loi waxu ko lan moo tere woon Macky Sall. président euh, battal campagne bi di Amadou Ba président de la république. bu dul mënul battre campagne lu tax mu campagne en deux euh, parce qu'il était candidat. ah voilà xam nga lan lañ koy bañal. mais bi lépp yoon du candidat dafa am candidat. Ousmane Sonko du candidat bokkul bokkul Ousmane Sonko du candidat mais Ousmane Sonko du président. mais parce que statut président génneel ma benn texte du ko génne ba ilaa yow di dem di impliqué wu ci élection wu législative wala locale loolu la ñuy bañ mais élection présidentielle son parti am candidat aucun texte interdirul Macky Sall mu baata campagne benn amul amul amul kenn du ko génne. kan su baataru campagne. moom la neex moom la neex. léegi nag waa APR nañu demandé pourquoi il n'a pas battu campagne waxuma la battre mm. campagne sax wax lu positif ci am na ñëw ci commencé ku mel ni euh, Oumar Sow commencé na naan Macky Sall dafa saboté euh, mais loolu laa gëm loolu laa gëm loolu laa gëm ci biir pleine campagne électorale suba la campagne bi di tijji ñëpp di gañ seen candidat di euh, wax kan mooy seen candidat di wax ay baax baaxam yow nga taxaw di jiñ sa candidat corruption kooku bëgg na gañe mais lii moo fi xew lii moo fi xew. moo lan moo xew ci diggante bi ba bëggul gañe. ah waaw bu bëggoon mu gañe moom. dina def li wane ne wax ni ñoom dañoo bëgg conserver le pouvoir. qu'est-ce ah, qui a changé euh, parce que le président Macky Sall daf boo leen ma déggalee ma jetloo leen euh, mbir mi waaw ah, donc kon gars yi moom lañ déggal euh, perte. mais du du du du amul loo xamante ne. waaye dégg bi tamit daf ci teg ay condition de waxoon na ne bu ngeen boolowee nekk benn. topp samay conseil mais ñoom nag boolowuñu. mais loolu bokk gis nañ ba à la dernière minute yenn cadre yoo léegi nag yow nga tas parti euh, tëj euh, militant ya tëj président ba ba pare nag ñëw sa parti moom mu joxoñ ñëpp topp Ousmane Sonko ba mu joxoñee Diomaye kenn contesté wul yow nga joxoñ Amadou Ba Mame Boye Diaw tëb fenêtre. Aly Ngoye Ndiaye jaar ci plafond ba bun jon euh, mbëkk miir ya nga xam ne yaa échec loolu la. kon seen défaite bi kay ñoom ñoom ah, ñoom ñoo ko teg nañ ko consommé kay fi mu nii moom. Euh, nañ ko nañ ko nañ ko consommé mais je euh, je confirme ce qu'a dit Omar Sow aussi li ma leen waxoon ñoom defuñu ko. Omar Sow je l'ai vu mouiller le maillot. carrément à Yeumbeul te bi Amadou Ba foog naa ne euh, est-ce que du moom kese ne woon ca permanence ba sax il a été fidèle et loyal à Amadou Ba jusqu'à la fin permanence bi ñëpp ñëw ñëpp euh, bi ci ngoon bi moom waaw parce que Issa sur le plateau il avait dit que ni Omar Sow la fa gis ak keneen donc Omar Sow au moins di nga ne kii euh, soutien bi mu joxal Amadou Ba c'est sincère et c'est loyal et c'est fidèle mais loolu on ne peut pas dire autant ci Abdou Mbow on ne peut pas dire autant sur Mambay. mais mun nañ ko wax également pour ku mel ni Lat Diop gis nañ ko moom mu yéene la maillot. à mais avec avec bu tax mënul gagné fenn Lat Diop. man foog naa ne défaite bi ma gën a métti mooy bi ma gën a neex waaw man bu doon tippoo la Lat Diop laay tippoo euh, bi mu am te gën ma neex mooy bu Lat Diop il est arrogant pour lan moo ko fi jaar lan ban pouvoir nga am ba sa waay mënatoo am la tête sur les épaules. lan. donte ne après gis nañ ko mu félicité Diomaye. wula il n'a pas le choix il n'a pas le choix sans félicitation bi force la de moom kenn neexalu ci kenn boo félicité wul yaa say des. d'accord yow Pa Moussa jàpp nga ni euh, Amadou Ba en tant que chef de l'opposition tey jii mun na assumer pleinement boobu les rôles. bon euh, est-ce qu'il ne fait pas partie de la tranche des acteurs politiques amenés à la retraite par le président Macky parce que il est un peu ci même génération wu ñoom Idy ak ñooñu ah il a 30 pour cent Idy il a 1 pour cent mais euh, est-ce que. parce que dafa yow mais pour cent jàmbur yi ngay insister bi sànq. Ah, tamit ah loolu am di yow tamit. mënuma kaa wax a wax wax ba mu gonflé. foofu ci yooyu la yem. c'est-à-dire Amadou Ba vu son âge euh, trajectoire am et tout bon euh, foog naa ne moom it il euh, day demander à la retraite politique refonte la. c'est une réfonte de la classe politique opposition bi day changer yeneen ak yeneen day changer donc euh, am euh, ñi euh, conséquent war a aussi accompagner ci opposition bi ak moom bokk ak moom yeewee askan wi je pense à Déthié mhm. euh, je pense à Malick Gakou. Mhm. ñooñu noonu ñëpp. Khalifa Sall également qui se euh, retrouve avec 3,8 pour cent. bu ci résultat provisoire yi nga xamante ni tendance yi wane na ko depuis élection yi 3,8 pour cent. Khalifa mais loolu laa la bëgg laaj. xuree si tam defal na ko affaire. Barth borom Dakar. xuree si defal na ko affaire ñu bëri jàppoon nañ ni Barth moom Dakar. musu ko moom waxoon naa yàgg na wax ne na musu mu ko moom wax naa la ci sa plateau bii ne la Barth musul gagné Dakar saa fi mu toll nii moom. mais Barth moom moo tontu woon nii moom yàgg na gagné élection. musul gagné maa la wax boobu temps alliance ak yeewi amul woon maa la wax ne musul woon gagné. Barthélémy Diaz en 2009 Front Siggil Sénégal ba mu paree dem nekkul tedd li Soham bi Soham dem ville loolu fii ñu fekk Bart euh, ba muy gagné ci local yi ñu ne ko Sonko la mu nekk député ñu ne ko Sonko la loolu yëpp la si su taxaw fii nii Sénégalais yi wan ko ne Sonko la 19 communes yëpp la per fépp. kay moom saa yi. Euh, bi fii au niveau de Dakar na ko xaar selon toi. bi euh, man man de moom bettu ma voilà comme nag 19 communes Dakar yëpp ñoo boole ne la Sonko moo taxoon ñu voté la ah man bu la la damay démissionné mais comme que yéen waa Dakar wóolu wóoleen ma seen miiree ngoog. <laughs> dafa war a démissionner. jox mairie bi Khouraysi na jox mairie bi Khouraysi. <laughs> naka nga mën a expliquer lu fekk bu ñu xoolee ci sondage yi ñu amagum Idrissa euh, se retrouve avec 1 pour cent ku mel ni Aly Ngouille bu mujjee ñëw jiitu ko Mamadou Dia bu PUR jiitu ko xalifa Sall jiitu ko euh, ñeneen ak ñeneen jiitu ko. c'est c'est c'est la conséquence de ces va-et-vient mburoog soow. Euh, en 2000, euh, 2000, 2000, 2007, c'était comme ça aussi avec euh, le président Ouad. Des manquait de cohérence, Idrissa Seck, de constance. C'était prévisible. C'est-à-dire, euh, Penda, mutation sociale, il faut que mesurer l'ampleur. Euh, cette mutation sociale est impactée sur le euh, plan politique, médiatique, économique. FIP. la trempe des acteurs politiques comme Idrissa Seck mënatul émerger mënatul am dara Sénégal tey nga wax lii suba nga wax la lee teg dëndal sa waay euh, andil ay kaamil taril ay aayaak lu ne yooyu dawul yaramu électeur Sénégal li ñu xam mooy ku constant say wax ak say jëf nduroo hmm. mais Covid bi xaw ma lan et cetera euh, ndox buy fay daay kenn du ko segg ay waxu voilà voilà quoi. Mhm. voilà kan ngay jox révélation wu euh, élection yi am na ñoo xam te ni ñu Anta Babacar Ngom lañ ko jox. effectivement man tamit moom laa koy jox euh, parce que. donte ni demul Ndingler. waaw demul Ndingler te bu fa demoon dina <laughs> euh, loxo dina jib gémmiñ mais bon euh, déjà éléte était l'unique femme. de ces de ces élections là. Mhm. mais aussi euh, relativement jeune. Euh, qui a apporté ci euh, campagne bi aussi euh, mhm. des images et et et euh, ay ay ay ay ay ay slogan yu mm. attractif euh, avec la relève euh, keroog ba ba ba ñu reporter affaire yi wala fa commencé yëngu mhm. je l'ai vu sur scooter avec voilà des images yoo xamante ne mais et, et puis li mu li mu li mu li mu doon apporté ci plus-value euh, c'était important son discours et tout donc je pense que nii euh, moom moom moom moom laay def euh, révélation euh, ci élection bi nii mais boo xoolee ñoom ñëpp à part Diomaye ak Amadou ñi si des ñëpp est-ce que dajale nañ 10 pour cent mm. donc les Sénégalais on voté utile. Mm-hmm. comme on disait référendum la continuité wala rupture. Mmh. et les Sénégalais dans une écrasante majorité la rupture. Mm-hmm. alors Adji Sarr. dafa euh, am journaliste bu tudd Salma Ibrahima. Fall euh, Salma Ibrahima Fall. Euh, bu bu Walfadjri la nekk. bu bu dugal pour benn photo. Hmm. ñu wane ci Adji Sarr atterrir foofee ci aéroport bu Genève. bon je sais pas maa ngi soog dégg loolu noonu Salma ku xam la nekk fële ca Walfadjri. Hmm. Sif maa ngi koy nuyu au passage. voilà Salma Ibrahima Fall. foto baa euh, ngay seen ne aji bon euh, xaw na ko nuru mais je je sais pas après daal dinaa ko vérifier dinaa dinaa dinaa activer sama.